yéen a ngi teewlu info 221 ma àddu wax mbokk yi ci lu jëm ci arrestation ki di Ousmane Sonko doon na loo xamante ne askanu Sénégal jamono ji ñu ngi koy xalaatee nu ne tax na nag loolee daal jàpp nañ ne dépendre nañ ci ki di Ismaïla Madior Fall di jëwriñ bi ñu wàllum yoon fii ci Sénégal waaye itam président Macky Sall décision boobee nag kii di maître Abdoulaye Tall di ñenn ci avocat yi layal Ousmane Sonko moo daal di yëkkati ab kàddu ndax jàpp na rek ne lii di juge euh, bu chambre criminelle bu Ndakaaru daal dina rendre décision bi ci bi ko wutaleeg kii di Adji Sarr ab document boo xamante ne fësal nañ ko niki démb Seneweb daal di ko euh, tàbbaliwaat rek di signifier que Ousmane Sonko euh, jot nañ ko këndam ne ñaari atu kaso jëm rek ci wàllum corruption de la jeunesse ci mbirum Adji Sarr Sonko waaye loolee nag ngir ñu daal di ko teg loxo ba ne gëni loolee yoon dinañ ci àddu wala sax dinañ ci indi leer ginnaaw ba nga xamante ne Jeune Afrique nag daal dinañ contacter Abdoulaye Tall bokk ci ñenn avocat yi la moom nag jot nañ ko partagé waaye décision bi nag jotuñ cee formalisé ci niveau greffier yi loole nag la daal di xamle ab formalisation boo xamante ne daal ci 24 heures lañ leen may bi ñu sukkandikoo ci bile avocat décision bi mun a nekk disponible d'ici altine bu ñu dégmal maître Moussa maître Abdoulaye Tall nag di fësal yile kàddu ci àjjuma ji naka nu ne tamit doon na bëccëg yoo xamante la fii ci Sénégal duñ ko liggéey tax rek mun nañ ko dàkkal ba niki altine disponibilité ak exécution mu nekk ñaari chose ñaari mbir yoo xamante ni euh, doonoon na loo xamante ni faw rek ñu sukkandiku ngir juge instruction euh, ministre de la justice moo ci war a joxe dogal ak euh, kii di présidence ci noonu nag fas yéene ñu déglu ña nga xamante rek ñoom ñooy décider ngir ñu daal di amal lépp lu jëm ci pied ferme.